وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو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 الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ الم يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم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 وجعلها معجزة باقية على وجه كل زمان ساطعة البراهين والحجج والصلاة والسلام على من هو فاتح باب الحضرة في العلم والعين واليقين سيدنا محمد الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه المتخلقين بخلق القرآن ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الزمان أما بعد mbokki julliti ginnaaw ba ñu sante borom bi subhaanahu wa taala kañ ko ci turam yu sell yu màgg ya julli ci sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi mu chahru ramadaani lu barak rawatina fukki fan yi nga xamante ni moom la ñuy génn muy ayaamu rahma yal na yàlla defal ñu ci rahma ci suñu àdduna waaye defal ñu rahma ci àllaaxira insha allahu taala ñu dellu siwaat ci suñu assayru ma alquran muy tolloog suñu ñaareelu xalqa ci aynu maadi aynu maadi tv suñu tafsir bu mujj ñu ngi tàmbali woon defoon li ñu tuddee tamhid mën nañ ko tuddee mooy introduction ci ci tubaab ubbi programme bi ñu war a jàngale muy tafsirul quran jàng yan façon tafsir moo am jàng ki war a yan melokaan la war a làmboo comme ni nga xam ne la ko boroom xam-xam yi tënkee mooy mufassiroon yi tàmbali woon baatu audu billahi min alcheytaan arrajim tey ñuy jël baatu bismillahi arrahmani arrahim incha allah bismillahi arrahmani arrahim nag dafa nekk boo demee ci ñi nga xam ni ñooy jamono yi yéeféer yi ca Makka ñoom bu ñu daan tàmbali dara dañ daan wax bismillaati wal uzza maanaam bismillaati wal uzza aqraw aw bismillaati wal uzza af'alu aw bismillaati wal uzza aqulu shay'a hakada maanaam ci turu laat ak uzza yi nga xam ne ñoom lañ doon jaamu buñ daan def dara seen tur lañ daan tudd doo ko tàmbali li ñuy def bi alquran ñëwee nag jàngal ñu lépp lu ñuy defati nañu tàmbale ci bismillahi arrahmani irrahim moo tax saar yëpp ci baatu bismillahi arrahmani irrahim léegi nag li nga xamante ni mooy baatu bismillahi rahmaani rahim ñu jël baagi rek baa googu dafa doon xaraf boo xamante ni yoo xam ne alquran secret alquran yëpp mu ngi daje ci suratu fatiha secret fatiha yëpp mu ngi daje ci bismillahi rahmaani rahim secret bismillahi rahmaani rahim yëpp li ko li ko composé te te te tënk ko te doon kilifa gi mooy baa gi xaraf baa boobu kon baaboobu lu am doole la bismillahi al-azam xarful baa boobu it mu ngi ci bismillahi rahmaani rahim la ñuy bëgg a jàng tàmbalee ko ci baa boobu loolu moo tax muy wax li nga ci doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne ki nga xamante ni mooy sayidna ali kon karamallahu wajhahu mu doon wax ne ma raaytu shay'an illa wa raaytu allaha fihi aw qablahu gisuma dara duma gis dara lu gisna gisna ci yàlla manam luma gis rek dama ciy gis yàlla wala ma gis ci yàlla la ko jiitu mooy tekkale yenu salado naan la tasubu dahr fa inna dahr huwa allah legi ñu ñëw ci hikmatu ak secret bi tax yàlla borom bi subhanahu wa taala dal di tambale bismillahir rahmanir rahim mu tambale ba maanaam baagoogu tàmbalee ko ci xar ci aaya bismillahi arrahmani arrahim xikma am na ci lu tolloog fukk yoo xam ne mu ngi ci taxaw li nga xamante ni moo ca jiitu mooy baatu xarafu bismillahi arrahmani arrahim boo xoolee dafa ñëw am doole ci baat bi ba boo xoolee euh, bismillahi arrahman ci misaal euh, ni ko gisee ni baa bi baa bi nekk ni baa bi alif boo ko seq moo koy moo ko jiitu mais alif bi dafa mel ni amu ci dafa mel ni alif bi amul ci baat bi bu ñëwee rek dañuy jàng bis bismillahi daal di continuer loolu bokk na ci dayo bi nga xamante ni xarful baa bi am na ko léegi mu ne ñaareel bi mooy baawu bismillahi rahmaani rahim baa bi moom dafa doon xaraf baat baa dafa doon xarful baa dafa doon lettre boo xamante ni foo ko fekk moom day taqarloo ci alquran amul fu ñuy gis xarful baa mu ñëw moom cundum foog mu taqarloog alif wala mu taqarloog miim wala siin wala shiin wala waa wala taa wala yaa wala qaaf wala ayn wala ghiin wala wa hakada xaruf yëpp mën na jëflante ak ñoom moom xarful baa mën na ànd xuruf yëpp loolu bokk na ci jagle bi nga xamante ne bokk na ci li tax mu tàmbalee ñu tàmbalee ko bismillah maanaam mu tàmbalee fatiha li nga xamanteni moy ñettelu misal bi moy baa bi dafa ñëw doon xaraf bo xamni xaraf bu toroxlu la dafa ñëw toroxlu wacce bopam ba taxna mom lépp xaraf bu ñëw ànd ak mom bu top ci mom rek dalay yobale ci toroxlo boobu masalan boo jëlee bismillahi rrahmani rrahim gis nga bu ñu nee bismi dañ naan laahi du ñu wax laahu du ñu wax laaha boo nee rahma ni nga ciy teg dañ koy kasra raxiimi boo xoolee laahi raxmaani ak raxiimi ñeenti ñetti masque yooyu nga xam ne yëpp dañoo ñëw nekk ci suuf ñoom ñëpp li leen conditionné mooy xarful baa bi ci bismillahi rahmaani rahiim loolu ca la bokk kon toroxloom bokk na ci jagle yi nga xam ne bokk na ci li tax borom subhaanahu wa taala tàmbalee ko suuratu fatiha moo tax moom la borom subhaanahu wa taala doon wax ne ana inda al munkasira qulubuhum min ajli man maa ngi ànd ak ñi nga xam ni dañoo mokk mokkulu seen xol ngir man man maa tax ñu mokk mokkulu man maa ngi ànd ak ñooñu ñooñu lay jël taf ci boppam kon baabu la de cee bokk <laughs> li nga xam ne mooy ñeenteel bi mooy baab yi dafa ñëw toroxlu ci li feeñ ci ba ci bismillahi boo yóbbaale mbooleem ñi nga xam ni ñoo koy séq ci zahir waaye mu doon yëkkatiku daraja ci batin xaqiqatan def ci dafa doon yëkkatiku daraja ci moom ndax loolu li nga xam ne mooy toroxlu dafa bokk ci sifaatu siddiqin mooy nit yàlla yi nga xam ne yekk ñi yegg ci maqaama siddiqiya loolu toroxlu dafa bokk ci seen melokaan kon baa bi loolu bokk na ci maanaam wàcceeg bu yëkka wàcceeg boppam la ci li feeñ waaye yëkkateeku daraja la ci li nga xam ne mooy xaqi ci xaqiqa loolu mooy ñeenteel bi juróomeel bi mooy baa bi dafa ñëw doon loo xam ni dafa dëggu pour lan pour boromam subhanahu wa taala maanaam dëggu ci ànd ak yàlla ak ni mu ko def ba mu wàccee boppam te xëccoowul dara wuteeg li nga xamante ne mooy xarful jiim ak yaa xam nga boo seetee ci li nga xam ne mooy vingt 28 xaraf yi 28 lettres yi ci alquran ji ci tomb ci suuf baa la yaa jiim baa yaa jiim ñetti xaraf yooyu rek la ñuy tomb ci suuf boo jëlee jiim ak yaa ñoom seen tomb gis nga teguñu ko ci ci suufa suuf de ci diggante bi lañ ko teg ci diggante ci diggante bi lañ ko teg par exemple yaa ni ñu koy bindee boo ko bindee boo gisee tomb bi du nekk ci suufa suuf ci diggante bi lay nekk jiim même chose tombam ci digg bi lay nekk léegi bu dee baa nag moom toroxloom dafa yegg ci dafa jël baa gi muy daraja ci moom mu teg ko ci suufam naan ak tawaadu ma allah wal niñ koy xatee sax ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne man tawaadaa lillahi rafaahu llah ku toroxlu ngir yàlla yàlla yëkkati ko parce que moom nekkul sax di di ko teg ci diggante bi moom dafa ñëw teg ko ci suuf muy wane loolu yëkkatiku daraja la ci moom bokk na ci li nga xam ni ca la rawee xaraf yëpp moo tax yàlla jiital ko li nga xam ni mooy juróom-benneel bi mooy xaraf bi nga xamante ni mooy xarful alif wuuteeg ba boo gisee alif man wax nañ ne moo wax naa moo tàmbalee moo tàmbalee baat bi moo alif mi moo nekk nii moo tàmbalee bismillahi rahmaani rahim mais bi baa bi ñëwee dafa mel ni da koo éliminé dafa mel ni amatul te kuy jàngal Qur'an te jàngaloo ko ci xat ci bind buñ la ko jàngalee nga buñ la ko doon buñ la ko doon bindloo tey booy boo amul seetlu tuuti ba maytuwul alif xaraf bi alif bi da koy éliminé da koy éliminer parce que alif dafay sàkku ngir kawe moo tax yàlla suufeel ko ci ci ci ci ci baatu bisimilah rahmaani rahiim ba nag sàkku ngir suufee ba jël tombam teg ko ci suuf muy daraja ci moom mu teg ci tànkam yàlla yëkkati ko moo tax mu éliminer alif boobu loolu bokk na ci xikma bi juróom-ñaareel bi mooy xarful baa i bi foo ko fekk moom ñi ko ku topp ci moom dangay topp ci ndigalam force boo ñëwee ku ñëw ku ko topp da lay kasra بسم الله الرحمن الرحيم البوشر ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر القيوم الحيوم الحيوم القيوم الظاهر الباطن الجسد يبدا لين كسر مانام بن كورون ديف اي اي صفه مانام ديف كو نعت تام كاو يامو سي الرحمن الرحيم ني كونتيني دي تاغ يالا سي تروم يو كاو يوي بو سي نيو رك دالاي داغاي كسره سي سوف dañ lay maas comme ni ñuy mii bi rahim yi noonu lañ lay maasee parce que baa gi moo tax mooy kilifa gi ndax daraja bi ko yàlla jox bokk na ci li nga xam ni mooy juróom-ñetteelu jagle bi ci baa bi mooy moom foo ko fekk day jëfandi dafa am ay melo yu bari yoo xam ne mën na koo feeñ ci aaya bu mu dugg am nu mu fa jëfe am taxawaay bu mu fa am xaraf yëpp yi respecté ko te bu ñëwee aaya bu mu dugg lu mu fa fekk xaraf ba mu fa fekk da ngay topp ndigalam lu dul li ñuy tuddee xarfu xarfu ma la dafa am ci arab xaraf yoo xam ne lu ñu changé lu mel ni ay Mustafa ay Muntaqa ay Muusa ay Isa gis nga yooyu xaraf yooyu ak yeneen yu mel ni moom yu baree baree bari la ci ci ci ci langu arab wala yi nga xam ne ay turu ajam lañ nga yi nga xam ne du ñu arab tur yooyu foo leen ñoom bu ñu àndee ak ba boo ne masalan nga ni raaytu bi Muusa gis nga Muusa mënul soppeeku moo tax ñi bàyyi fa masque bi ci kaw mais ci xaqiqa buñ koy arab ci eh, ci maanaam ci grammaire arab eh, maanaam eh, li wàll bi ci baa bi am day feeñ ci suuf dañ naan bi ci kaw dañ koo nattale mais ci ci biir baa dafay jël wàllam loolu it bokk na ci ay jëgleem mooy juróom-ñetteel bi neuvième bi mooy juróom-ñeenteel yi mooy li nga xam ni mooy xarful ba xaraf bu mat la ci melo ak ci jëmmam bu ko mën naa jokk ay baat mën na dem moom kase it ay bokk na ci ay jag li nga xam ne mais ci alquran bokku na ci ñàkk beroom foo ko fekk il pàññe ko pour kooku mën a dem loolu mooy juróom-ñetteel bi juróom-ñeenteel bi kon fukkeel bi mooy ashir mooy baa bi xarfun shafawi la baa boo koy tudd boo seetloo il foog nga tëj sa gémmiñ foog nga def nii gis nga ba ba mënuloo tëj sa gémmiñ te doo ko def moo tax ci olamaul xuruuf ñuy wax ne nit mënul bind bépp mbind boo gis ci àdduna ci xarful ci tomb baa boobu la commencé boo xoolee boo tegee big bala ngay bind foog nga tomb foog nga teg doog a dem ba nga tongee tegee rek big bi ca nga amee tomb moo tax lii ne lépp même mbooleem ulum yi ci àdduna yëpp ci xarful baa boobu la ko yàlla dëxëñ lepp loy bind ci xam-xam fo nga tomb tomb bu amé nga do ga dem tomb bobu nak mooy tomb bi ne ci suufu ba tomb bobu nak mo dajale secret alquran ci ngay gëmee ne kon booleem ni ñu doon wax keroog neen booleem bi dox ci aduna ci alquran lay doxé bu dul alquran dara do mëna dem tomb ci la ba paré benen bi nit buy wax ci waxam ci lamagne buy wax ci gémmiñam foog mu ñep ay tubañ tuñam do ro commencé maa damani gis nga foog ay tuñam ñëpp do a bu rek day am ba فولا حرف الباء دي جنه جس كون بوليم كلمات ييب تي جيم ني دوما ادم با دا تي ام وال لولو موتاخ ني موني حرف لا بو خمانتاني شفويه تفتح الشف شفا بما لا تفتح به غيره مو فدون حرف بو خامني ني مو موني اوبي جيمن بنن حرف مانوك تي يينن حرف يب لولو موتاخ تي ديغ نيغلام اك توپ نيغلو بروم سبحانه وتعالى bi ñu yàlla naan alastu bi rabbikum ba mu bindee ruux yépp di leen wax ne leen ndax duma seen borom ca jamono jooju nga ni kay gëm ca la gëme kay weddi ka gëmul yàlla ca la gëmewul mbooleem kuy topp yenu salaa foofu nga ko tàmbale mbooleem ku toppul yonent bi foofu la jóge mbooleem kuy am sëriñ bu lay tarbiya foofu la tam la tàmbale ca jamono jooju ji borom bi naan alastu bi rabbikum qaalu ba bala سي بي ني تونت يالا بات حرف الباء لا ني جيفانيكو بور ني مانا تونت يالا فوك ني اندي با مانام بن حرف مونون نيو فوفو بودول با با رك مو ام فوفو بلاص لولو بروم سبحانه وتعالى موكو تيرالي نونو تيري ركو القران موتا بول لا ني سيكري القران ييب موغي تي فاتحه سيكري فاتحه ييب موغي تي بسم الله الرحمن الرحيم سكر بسم الله الرحمن الرحيم من حرف الباء غوركو من غمتا كومبراندر كو باسكو حكمه بيتي يالا ديف موتاخ noonu la alquran doxe nga ñëw ci kon bismillahi mooy maa ngi tàmbalee ci turu yàlla boo ñëwee ci baatu arrahmaani arrahmaani mooy kii xéewal bépp mbindeef baatu rahmaan mu ngi jóge ci rahim waaye rahma waaye dafa dañ koy yóbbu ci xéewal lépp lu nit di dunde ci àdduna li muy lekk li muy naan wërsëg yi ñuy am noyyi yi ñuy noyyi jéego yi ñuy def loxo yi articulation yi ni ñuy yëngatoo biir bi la muy li muy fonctionné deret bi dox ci doomu aadama loolu lépp mu ngi doxee ci baatu ci ci turu arrahman lépp day dugg ci xéwal yi baatu rahim mooy rahman googu nag mbindeef yépp a ko jagoo amul jullit bi amul juif bi amul catholique bi amul keneen ak keneen ñépp a ko jago ku ci ne ki gëm yàlla ki naan yàlla neex yàlla naqari yàlla ñëpp ñoom li ñuy dund ak li ñuy dox ci àdduna ak yëpp yàlla mu ko doxañ ci baatu rahman rahim nag moy mooy yërëm nag yërmande googu mu ngi ko jagleel ku ko soob ku ko neex ëllëg borom bi subhana taala mu ngi jéggal la yërëm la moo tax ngay nit bi amul droit di am garantie ne day day dem aljanna parce que aljanna ci loxo yàlla la ne yërmande yàlla ci loxoom la ne moo jox ku ko neex loolu moo tax bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax inna allaha inna lillahi miata rahma ata waxidatan minha li ahli dunia waddakara tis'an wa tis'ina ila al axirati yarhamu biha ibada mu ne yàlla dafa am lu tolloog téeméeri yërmande mu ne benn benn la jox ñi nga xam ne mooy waa adduna li fiy ñëw ci yërmande yëpp benn la si des yëpp 99 bi mu ñu ko dencal ba ëllëg yowmal qiyaama kon yàlla mën na yàlla yaatu na ëllëg yowmal qiyaama ni ñu ko foogee ëpp na lool ndax moom lu ko neex rek te ni mu ko neexee dara safu ko it mën na jël ñëpp defal leen aljanna te dara du ko ci fekk yal nañu ko yal nañu jéggal te yërëm ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis ne bi nga xamante ni dafa rañaan guddi gi mu rañaan dem isra wal mi'raj dem ba juróom-ñaareelu asamaan ba mu demee nee na dañ ko présenté aljanna yëpp mu xool ko bi mu xoolee aljanna yi mu fa gis lu tolloog ñeenti dex benn dex bi ndox la benn bi lem meew la benn bi sàngara la benn bi lem la sàngara xaraam dafa xaraam fii ci àdduna parce que day tàgg tàggalikook nit xelam te lépp luy tàggaleeg nit sa xel loolu dafa xaraam waaye ci aljanna am na sàngara soo xam ni moo dàq ji foofu ñu xam ne ku naan bii bu ëllëgee boobu yàlla du la ca nandal léegi bi mu gisee ñeenti dox yooyu mu ne naa Jibril mu ne ko ndox yi fan lay jóge ak fan lay jëm mu ne ko ndox yi de ñu ngi jëm kawsara maanaam ci dexu kawsara lañ jëm waaye xaw ma fan lay fan lay jóge ne ko ñaanal sa borom boo ko ñaanee subhana taala dina la xamal fan la ndox yi di jóge nee na ma ñaan ko bi ma ko ñaanee nee na am benn malaaka bu ñëw ci man dal di may nuyu ne ma yaa Muhammad xammid aynayka gëmmal say ñaari bat nee ma gëmm samay ñaari bat bi ma ko gëmmee mu ne ma iftax aynayka ma ubbi ko ma ubbi samay bët mu ne ubbil ma ubbi ko bi ma ubbee maa ngi gis benn garab boo xamante ni mu ngi am benn xubba xubba mooy nen yooyu di nekk ci jàkk yi nekk ci kaw xubba la am xubba boo xamante ni yaatuwaay bi ak ngandaay bi ak rëy rëyaay bi doon na noo xamante ni boo dajale woon mbindeef yëpp dugal leen ci dañuy mel ni ay picc ndax ni mu rëyee nee na bi ma duggee ci xubba bi ma gis ci ñeenti koñu xubba bi maa ngi gis ñeenti koñ yi benn koñ bu nekk am na dex bu fay génn ci diggante dexu ndox dexu meew dexu lem ak dexu sàngara neena ma xool baatu ma xool ndekete dexu ndox bi mu ngi génnee ci xarful miim bi maanaam boo jëree bismillahi rahmaani rahim dexu ndox yëpp mu ngi génnee fii ci ci miimu bismillah bis miimu basmala bépp ndox muy dox ci àdduna yàlla mu ngi ko programme fa muy ballee di dem ci xawdul mm, kawthar mu ngi génnee ci miimu bismillahi rahmaani rahim bi mu ne ma xool ci beneen coin bi gis fa haaw haa ci haaw bismillahi haa bi ma gis ne meew mi mooy génn foofu mooy bépp meew moo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo yàlla nga ko ballalee ci haaw bismillahi rahmaani rahim ma doxaat tuuti gis tourné waat gis miimu rahmaani ñu ngi ko sàngara moo fay génne miim ji mu ne bépp sàngara boo xam ne bu ñuy jëfandikoo la ëllëg yowmal qiyaama muy génne ci miimu rahmaani gi nga xoolaat ci beneen miim ga daal di fay gis lam mooy miimu rahim mooy bépp asal bépp lem bu ñuy jëfandikoo ci àdduna ak alaxira mu ngi génnee ci miimu rahim gi kon boo tënkee lii daanaka daanaka da nga naan ci ngay xamee ne mbooleem lu doomu aadama di jëfandikoo ci àdduna mu ngi jógee ci bismillah ci ci barke bismillahi rahmaani rahim ci la ko yàlla programmé nee na bi loolu amee nag ca la nee na ma daal di gis yooyu yëpp nag نينا يعني برب سبحانه وتعالى نما يا محمد من ذكرني من ذكرني بهذه الأسماء من أمتك بقلب خالص من رياء وقال بسم الله الرحمن الرحيم سقيته من هذه الأنهار من سخيت يا محمد كيف كما تدوتي تروي باتي موي بسم الله الرحمن الرحيم تدن تلول نجستل ci lu dul dara maanaam def ko ngir yàlla sellal ko nee na képp da ngi dégg képp koo xamante ni def na loolu nee na kooku ma nàndal ko ci dex dex yi may nàndal may nàndali ëllëg mooy naa ko nàndal ci dexu ci dexu kawsar nàndal ko ci dexu meew yi nàndal ko ci dexu sàngara yi nàndal ko ci dexu lem yi ñeent yooyu yëpp dinaa ko ci nàndal ëllëg kon boo jullit bi toogee ne bismillahi rahmaani rahim neexe mu gëmm ba tam ànd ak teewlu ak sellal bañ a xalaat dara ci àdduna li ci nekk ci yool kenn xamul lu mu toll moo tax booy baati bisimilah rahmaani rahim am na ci benn secret bu mag ñi daan joxe ki nga xam ne day tëdd nee na bu dee tëdd mu jàng ko vingt et un fois vingt et un fois boo ko xoolee xarafi bisimilah rahmaani rahim dalay jox vingt et un vingt et un lettre la boo ko jëlee nga jàng ko ci bisimilah rahmaani rahim bala ngay tëdd incha allahu taala ci yàlla kattanam ak baaxam mën na la musal ci mbooleem feebar ba doo yeew waaleeg jàngoro loolu mag ñi daan nañ ko jàngale kon gis nga bisimilah rahmaani rahim mu ngoog ba pare yonent bi wa sallam ne képp koo xamante ni jàng na ko nee na kooku laa yaruddu duaa duaaun awalu bismillahi rahmaani rahim képp koo xam ne day ñaan ñaan wi mu tàmbalee ci bismillahi rahmaani rahim nee na ñaan boobu kenn du ko delloo moo tax ci yoonu lislaam lépp lu jullit di def na wax bismillahi rahmaani rahim bu dul dara wax bismillah sax maa ngi tàmbalee ci tur yàlla bu ma nee nag teg ci bismillahi rahmaani rahim moo gën a am doole kon bismillahi rahmaani rahim mu ngoog yal na yàlla boole ñu ci ahlu bismillahi rahmaani rahim te lépp lu ñu ci jàng ci alquran wala ci zikru yëpp mu boole ñu ko nangul bi jaahi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Allah